seen soxla ñoo dàqoon tudd yàlla teewu leen liggéey ñoo dàqoon tudd yàlla teewu leen ànd ak seen mbokk di dox li ñu war dox ndax ci saaba yi di nga ca fekk koo xam ne buy tudd yàlla bu la nuyoo doo ko fay am na ci ah? min chiimati suuf ku nekk ci wiir di bokk ne asalaamaaleykum wa rahmatulah <laughs> lan la dañuy nekk si yoon di waxtaan muy kaf ak ñun dégg di tooñ di reetaan waaye askaarul masaa ñëw mbaa askaaru sabaa ñëw da gis ku noppi si saas ne damay zikar ku ko woo heure doo ko mën a jot day fay téléphone am yow mi ànd moom booy wax moom du la faale faaw mu jeexal askaaru sabaaxam ak masaa te yar nañu si boo bëggee xam ab naafiq dëgg dëgg dëgg ko jàpp dangay dem ba ne kirtim abu habi nga xam ne jàpp nga naafiq piir ndax dëgguwul digganteem ak boroomam dëgguwul digganteem ak nit boo xasee aw nit ci dara ne lii biddaa la lu baax bon nangam ak nangam sabooti leen ci ne loolu amul woon ci saaba yi saaba yi daawuñ ko def yow yu seedeel la ñi ànd ak yow yow ba nga amee jafe-jafe ñuy seede yow sang mbaax ak ni nga jegee sa borom ak ni nga sellee ba la nga doon xasee nit ñi loolu lañ la taggee tey loolu ab fiq képp lañ mën a seedeel ne yaa doon xas keefee te loolu nga ko doon xasee tey loolu laa lay taggee yow sa màggaay su ma ko bëggee wone loolu lay tuddaat booy booy wax azkaaru sabaax wal masaa doo wax ak kenn da ngay fay sa téléphone kenn du la mën a jot maanaam daal da ngay da ngay déconnecté ba ba ngay pare yow yow ku la nuyu mbaa da nga ko fay te uhu uhu kenn sant ko kenn de lii ñuy tuddee azkaaru sabaax wal masaa nag du lu benn saxaaba yoroon di ko sikkar boroom xam-xam yi ñoo ko for dajale ko ci waxi yonent bi ak ñi yonent daan ñaane wante amul woon benn saa boo xam ne fukki ñaan wala juróom fukki ñaan wala ñaari fukki ñaan yonent danga ko mokkaloon bis bu leen nga koy tari amul benn firnde am na saaba yoo xam ne yi xam ngay sikkar yooy sikkar ci askaaru sabaaxal mosaa saaba yi mos ñoo dégg loolu mos ñu ko xam sax kon askaaru wal masa sabaaxi wal masa loolu du sikkaru saaba yi benn saaba mosu koo def te askaaru sabaa masa di di tari di def li di tari amul ben firnde kon borom xam-xam yi ko dajale ñoko ràbbe non lool lépp nag ci ay hadith la jóge ci yonentou ba waye sa bay musu ko def té ci def bi mu jógee jàkk ji ci fajar rek la koy xol ndax ñom dafa mel ne démb ci guddi wala tay ci fajar yagul dal yàggul duggalé vidéo bobu def kan moy Oustaz Omar Sall partie 1 bi nag moo nekk noonu waa ji di seede ni mu fonkee askaaru sa mel ne askaaru sa baabul masaa moom bind moom dégg nga kan moo ci dugal charte yooyu charte doo wax wax doo dangay noppeek doo faale kenn amul amul ci benn téere ko fenn moom fu mu ko xamee fan la xamee ne maanaam askaaru sababul masaa moom léegi nangam waa ji di nag ba tudd loolu sama xel dem ci conférence bu ñu defoon Gambie ci wàllu soufisme xas nit di tasawuf ci yu mel noonu dañuy dañuy noppi duñ wax ak kenn nangam nangam te loolu amul ci sunna di fen fen foofu yépp ba mu tooy nekkee moom ci la dëkk te lim dëkk kat di ko def moom xam nga boo demee ci tariqa tijaan sax wala yu mel noonu da gis ñu ne la kuy wird du wax day war a toppi concentré wu yooyu mais askar wal masa sabaax wal masa moom kenn waxu ci loolu te askaru sabaax wal masa lan la la yàlla musal la ci journée beeg nangam nangam loolu du sikkar sax di du sikkar di ay muslaay la noonu mu koy defee nag noonu la ko tijaan yeeg murid yeeg yëpp fonkee di ko def moo ëppale woo kenn waaye léegi nag la ñuy sikkar te mooy zikrullahi muy laa ilaha illallah wala astaghfirullah wala salaatu ala nabi ñu cee def lu bare bare bare loolu mooy sikkar yow nga saboote ñëpp te yow yow da koy def te def gi nga ko def ñelee def gi nga koy def dañ ko bind ci seen téere yow def kuñ ko rek kenn bindu ko fenn kenn bindu ko ci biir azkaar wal sabaay wal masaa boo ko def bul wax ak kenn kenn bindu ko fen ci téere wahabi yi kon loolu moom moom lan la moom fu mu jóge nga xam ne ci tappaleeg caay-caay ci loolu lañ ne maanaam dara dara dara gëm-gëm amul zéro loolu la neex ngay def yow ku la neex saaga loolu neex mel itam su la dee nga indi say bidaay bopp yoo xam ne yow yaa ko créé loolu Omar Sarr rek koy def est-ce que am na beneen waxaat boo xam bu jàng sa doo ah, <laughs> xam kenn. ci wax lu mu xam lu rek lay dugg waaw wàllum boo buñ la nuyoo waroo fay ak yooyu yëpp moom xamu ci dara yoonam niwu ci mën a fen képp moo ko mën a loolu moo ko mën a dugal foofu waaw. gis kenn nag bu ñu ko nuyoo loolu lay def tekkiwul na looloo nekk ci téere yi dañuy wax ne bokk la ci charte yi boo demee ci kawkabul wahaaj ba muy firi waxu abdul karim bin nisba wa adamu kalaamin illa al kalimata wal kalimatayn loolu daf bokk ci charte yi adamu kalaamin bañ a wax illal kalimata lu dul benn baat wal kalimatayni wala ñaari baat wa aleykumu salaam kay ñaari baat la wa aleykumu salaam loolu maye nañ ko waxtaan nag lañuy bañ ak wax wax joo xam ne amul ngànt lu ko waral waaye nit nuyu la su la neexee mën nga koo fay te du yàq ci wérdu bi boo ko fay wit itam du yàq dara ndax boroom xam-xam yi am nañ ay takk ci ay nit yoo xam ne fay nuyoo waru leen e, tudd nañ ci ñu bari kon nag kuy sikkar su la neexee ku la nuyu doo ko fay waaye boo ko fayoon itam yàqul wér di kenn sartu ci ne force doo ko fay

bu fekkee ne ngant dafa am nag nit daf la nuyu nga bëgg koo fay nit dafa am fu taxaw nga bëgg koo xaaj pour mu bañ a daanu moytul wala nangam ak nangam dara lu tax man ngaa def wax man ngaa junj bu la ci neex te ci biir wax ji sax dafa am ñoo xam ne dañ leen caa génnee ñooñu moom buñ la soxlaa wala ñu laaj la wala ñu wax ak yow da ngay wax ak ñoom pare ca la ñuy wax nga continuer ñaari way ci lañ bokk Eh, nit boroom këram di wax ak moom fekk muy wérd mën naa wax ak moom li boroom kër bi soxla ba noppi loolu continuer wérd bi bi ca bokk ak yeneen Omar du wax lu mu xam ilaa yu mu diin nii daal lay deewee xam naa ne yàlla yàlla musul ñu musul bépp jullit ci wahabi ndax ñoom duaatun ala abwaabi jahannam ca bunti sawara ya lañ taxaw di woo nit ñi waaye cheikh bi ñii kay ci ak caay caay gu leer nañ nañ nañ nañ lañ nekk yow askaarul masa ak askaaru sabax yow respecté nga ko ba teg ci ay sart yoo xam ne ma anzal allah biha min sultaan nit ñi di wer teg seen i sart nga doon nga nangul yow man après ci laa comprendre bi ni docteur Ahmed Lo waxee ko wax maanaam li tax jëlul engagement ci Omar Sall yenn yi naan ci àll lañ ko mën a booleeg moo yooyu mu utiliser man damaa jàpp ni docteur dafa commencé nand ni sawaay da da di yàqal sawaay da leen di yàqal te moom loo Omar heure bu def buñ koy vaar dañ ci laaxaale sëriñam xam naa loolu la nand nag moo tax jëlu ci engagement doon wax naan ay waxin weeg yii xam nga nit ñi moom boo dégg day xam nit ñi